Euh, jëm ca beneen ponk euh, Mass Mboup nag suñu confrère présentateur foofee ca Walfadjri Walf TV moom nag daal nay annoncé li nga xam ne moo nekk son départ ci télévision boobee ginnaaw li nga xam ne nag moom la joxe comme explication moom Mass Mboup daal nay xam ne rek appartenance politique daal moo moo ko daal di jëlee fa nga xam ne moo nekk euh, ca Walfadjri également Joro tey jii li nga xam ne moom nga nemmeeku ci biir vie politique ba ci biir maison de presse ban jàngat nga ci am émission de masse sur Walfadjri waaw bon comme comme ni ko ñëpp jàngatee euh, moi j'ai reçu l'information de la démission de Mame Mass Mboup ce matin à travers euh, la page de Ngoné Saliou ak euh, Mati Sarr Niang foofu laa gisee maintenant je ne saurais savoir ses vraies motivations en tout cas li avancé mooy ni que euh, day renoncer ci carrière de journalisme pour mun a def ay activité am politique maintenant Mass <clears throat> mënu mënuguma ko identifier comme quelqu'un qui fait partie de PASTEF peut-être c'est un. et pourquoi peut-être c'est un sympathisant mais amul benn instance PASTEF boo xamante ne reconnaître na à l'instant Mass peut-être il est un sympathisant ou bien un défenseur euh, du projet. Euh, mooy moment bi nga xamante ni le régime de Macky Sall mu ngi ñu doon persécuté mu ngi ñu doon emprisonné Mass toujours dañ ko doon dégg dañ doon dégg sa muy defande la démocratie muy defande les libertés ainsi de suite ainsi de suite mm-hmm. maintenant am na loo xamante ni aussi c'est c'est sa vie privée moom moo xam fan la ko mbir mi toll ba mu jaral ko mu démissionner mais quoi qu'il en soit aussi euh, euh, il il sera jugé de ses actes est-ce que motivation bi purement politique la donc man jàpp naa ni actuellement nous avons dépassé l'ère de la politique actuellement ñun ci temps wu liggéey lañ nekk mais nekkatuñ ci temps politique parce que le peuple nous a confié un mandat de cinq ans jox nañu exécutif au mois de mars avec 54 pour cent récemment ñu jox ñu le pouvoir législatif euh, avec 54 pour cent aussi avec 130 députés mu nekk lu inédit. donc jox nañu tout tous les mécanismes jox nañu tous les leviers. pour transformer ce pays là donc ñu fi nekk euh, di di di di nekkaat sur des questions politiques. Euh, des tiraillements des débats yoo xam ne amul benn sens yoo xamante ne ça nous mène absolument nulle part maintenant nag si Mass décide de venir et une pierre euh, à l'édifice nous on preneur parce que euh, il sera toujours ça sera toujours di moins une valeur ajoutée parce que Mass euh, borom xam-xam la kenn du ko bañ a lool ci domaine am. Mm-hmm. bu fekkente ni am na lu mu mën a jàppale état ñu loolu dañ koy jël. maintenant man nag je connais pas vraiment ces ces ces réelles donc duma ci mën a avancer bu baax a baax. Mhm. doo ci mën a avancer bu baax a baax Ibrahima Khalil fi may dëkk yow moom Mass Mboup euh, ginaaw ab publication bi nga xam ne daal dina koy xamle il faut savoir que ni euh, c'est son appartenance politique en tout cas euh, moo daal di tax mu ne fa nga xam ne mu nekk wal Walfadjri tey jii lan nga mën a wax ci Mass Mboup avec sa démission. bon Oumar Khary loolu de liñ ci mën a wax peut-être parce que ku nekk rek. jàpp nga ne fa nga gën a nekkee à l'aise wala fa nga gën a jàppee ne xëy na peut-être bu ma nekkee ci lii mhm. ca laay gën a am li nga xamante ne moom mooy samay bëgg-bëgg mhm. parce que dans la vie ça commence soi ku nekk am na euh, privilège def li nga bëgg a def ku nekk am nga liberté wu choisir la nga xamante ne tey ji moom nga bëgg a def am na ñoo xam ne dañoo choisir doon ay journaliste ba ba ñuy retraité ñu ngi ci métier bi moom tamit bu demee exercer ko ba fi ñu tollu ma gis ne peut-être y a des lendemains meilleurs yoo xamante ne ñoo ko gënal ci li nga xamante ne moom la ne dañ koy souhaiter bon vent d'abord euh, parce que nag quoi qu'on puisse dire euh, bu mag la ku xam li muy def la et ku maîtriser li muy def la mënuñu koo jàngal métier am tuuti nañ ci mënuñu koo critiquer ci ay suwaam tuuti nañ ci waaye dañuy respecter li nga xamante ne moom la suwa bi mu jël ak courage bi ak responsabilité bi tax mu def loolu liñ ko ci mën a wax mooy que ne ak lépp lu ci mën ci doon daal na ko teg ci acte patriotisme euh, patriotisme au vrai sens du terme laa bëgg a wax mais lépp lu mu ciy def tamit na xool ne ci am dafa am fu ma jógee te dafa am loo xamante ne moo tax ma bàyyi. Hmm. jublu ci lii ci loolu rek bi wax na ko loolu lañ ko mën a juger. Hmm. lan moo tax mu def ko moom kese moom ay raison li tax mu def ko peut-être li mu annoncé euh, wax nag dafa bokkut ak jëf. te dañoo toll foo xamante ne tey jii um xeer wax naa ko fi waxaat ko. Hmm. Sénégal dafa jël benn yoon. yoon bi nag soit que train la bu ñu ko nee tuddee train. train boobu nag yow yaay dem duggu mu yóbbaale la soit que nga sagan rek mu bala fi parce que dafa am foo xamante ne fa lañ jugee te dafa am foo xamante ne fa lañ jëm ci ñi ko téye ay génération naw ay nawle kese lañ. Mm-hmm. ay ndaw lañ ñoo xamante ne ñoo bokk génération ci le sens politique. ñoo bokk génération ci âge ñoo bokk loo xamante ne bu nay bu fekkoonte ne lu ñuy toog di waxtaanee dañuy naan même génération la. Mm-hmm. génération bu nag bu ko fi yàlla tegee. ñu am lu ñuy indi am lu ñuy incarné boo demee ba gis ne peut-être apporter ci sa contribution moom mooy li nga xamante ne foofu nga gën a nekkee à l'aise mm-hmm. parce que dama jàpp ne euh, servir le Sénégal mën nañ koo defee fépp fi nga xamante ne mën foofu nga ne muy ci journalisme bi muy ci art bi muy ci feneen ak feneen fépp foo mënti ne boo bëggee jàppale Sénégal mën nga koo jàppale mm-hmm. d'ailleurs nag boo xoolee feneen foo xamante ne xëy na fa ngay gën a nekkee euh, à l'aise gën koo mën a def peut-être euh, loolu moom la engagé liñ koy ñaanal daal. Mhm. moo xam lam ci jublu ca lam ca bëgg yal na ko yàlla euh, may mu réussir ko defal ko mhm. ca tawféex. Mhm. waaye en tout cas daal ci ay actam la xam peut Euh, masse boobu la woon wala dafa changé wala lan moo waroon réellement mu def li nga xamante ne moom loolu la def tey jii nii. Euh, mais euh, Khalil li ci xaw a doy waar mooy ampleur bi nga xam tey jii politique bi daal na koy am. Mhm. ci ba biir maison que y a boobu ba tey yaa ngi gis ay dañuy dañuy wane fi nga xam ne fa la ñu far ba mu leen ñuy génn yenn propos yi ci loo xam ne lu warul woon la on peut dire kenn ku ci nekk nag am nga droit far mais est-ce que tey jii journalistes yi ñun taskatu xibaar yi war nañoo bàyyi suñu ay appartenance politique. di dugg suñu vie professionnelle ba dañu yàqal. Mm-hmm. wax nga lu am solo te foofu Oumou yi dañ fa war a def très attention nu en tant que journaliste. Mm-hmm. ñun ay citoyen lañ d'abord avant d'être journaliste. Mm-hmm. ñun ay sénégalais lañ impliqué et concerné ci liy xew ci réew mi avant ñoo doon ay journaliste. tey réew mi toll woon na foo xamante ne tey jii nii. du ko bi du ko politikul ñépp a toogoon seen kër yi parce que mënuñoo xëy te am na ñu toogoon ne sama yoon nekku ca. ba ngay jàpp ne sa yoon nekku ca nag bëggoon ngaa xëy mënoo dem. sa doom bi nga xamante ne danga ne woon du bokk ca xeex demoon na jëndi ay ordonnance ñu téye ko tëj ko ci kaso bi 9 mois. kii di dem di jàngi wala muy jëndi ay leneen ak leneen bokkut ci marché ñu jàpp ko tëj ko 1 mois wala 2 mhm. ba jàpp 4 mois te ñooñu seen yoon nekkut ci politique. mais nag ay citoyens sénégalais lañ avant ñoo doon leneen ak leneen ci suñuy métier. lii xew ci senegal mënuñoo mhm. nangu ne ñun accepté nañ ay journaliste lañ mais ka baraa de baraa mën a exercer suñu suñu suñu suñu métier. Mhm. c'est-à-dire Sénégal dafa nekk ci jàmm. Sénégal dafa nekk ci ay voies yu baax Sénégal dafa dal ba pare su boobaa nag la ku nekk mën a dem liggéey ñu mën laa ràññee ci ne lii ngay liggéey mais est-ce que loolu dafa nekk bu ñu tolloo ci loo xamante ne dañuy yàq société bi ñu gis ñoo xamante ne ñu ngi rëy askan wi. Mhm. di tëj doomi aadama yi te xamoo ci lan la. est-ce que c'est est-ce que parce qu'on est journaliste duñ ci wax parce que dañoo mën a neutre est-ce que loolu la ñu def je pense que du loolu dafa am foo xamante ne métier journaliste bi nangu naa ko yaa moom sa plateau nit bu ñëwee toog opposant la parti au pouvoir da ngaa war a yemale loolu mooy équilibre. Hmm. boo ci invité ku nekk ci parti pouvoir kii am na droit de réponse ci beneen li nga xamante ne moo di émission mais quand il s'agit de la réflexion générale du pays quand il s'agit loo xamante ne dafa concerne li nga xamante ne mooy le Sénégal ñun ñëpp ay responsabilité lañ war nañ mën a toog fii dénoncer ko war nañ mën a toog feneen wax ko mais nag nan lañ ko war a mën a waxee mm-hmm. li uma xayri di def mën naa ne li parce que ñoo ànd mën naa ne li ngay def baaxul delluwaatal tegaat ci yoon umu xayri bu defee lu dul lu baaxul nit ñi di ko critiquer ci loolu mm-hmm. bu ko xeexal xeexam que am na loo xamante ne jaaduwul mais mm. bu fekkente ne tey jii nii mu ne xalil moo ànd ak waa amadu Ba lu ñu waxal waa amadu Ba pour pourtant am na ay ay yu ko demal ci ay plateau. man waruma faa toog naan Amadou Ba bi Amadou Ba déedéet parce que am na ñu ko mën a waxal. Mhm. pour keneen koo xamante nga ànd ak parti au pouvoir bu ñu ko waxalee leneen. Mhm. wax ci sa xalaat mais waroo cee wax ba ci fëgg sa dënn en tant que journaliste. bu ñu defee distinction yooyu dinañu mën a permettre ñu mën a canaliser ci li nga xamante ne du ñu wax ci parti politique mais dinañu wax ci intérêt général du pays foofu laay waxee. beneen bi mooy bu ñu moytuwul journaliste dafa war a neutre du journaliste lan mooy neutre mhm. mooy wax dëgg. la neutralité li may jàpp à chaque fois moom mooy wax dëgg soit que nga gis dëgg ji wax ko wala nga wax leneen loo xamante ne lu dul dëgg loolu dama koy wax fi à chaque fois. Mm-hmm. mais entre dëgg ak leneen lu dul dëgg lan moo fa ne amul. ci biir loolu nag la ñu mën a distinguer lan mooy la rôle di journalisme réellement cest à que ne. ñu xool lan mooy suñuy wareef ñu koy def te bàyyi ñi nga xamante ne seen xeexi politique la ñu bàyyi leen ñu xeexal ko seen bopp waaye bu ma ñu fekkente ne ñun ñoo bëgg a mm-hmm. ay défendeur ci ñoo xamante ne acteur politique lañu bu yàggee dafay mel ni politiciens yi dañuy manipuler journalistes yi mm-hmm. Mm-hmm. kon nag mu nekk Abba nekk ex bu bu parti takku wàllu ci baax Dias moom aussi ma ngay wax ne rek jëlul décision benn yoon daal di dugg biir